ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam te bàyyi ay tereem gannaaw loolu mbokki jullit yi nu continuer ci liñ tàmbali woon xutba bi weesu muy jàngat ayatul kursi ak li ci nekk ci ay ngëneel ak i njariñ ak ay meññet yoo xam ne day yëkkati jullit bi yóbbu ko ci maqaamam tiraanga maqaamam texe fii ci àdduna ak fële na jëm ëllëg ci àllaaxira borom bi tabaaraka wa taala mi ngi wax ci laaye ji la tegu ci fañ yemoon yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum nee na yaalamu dana xam moom sunu borom tabaraka wa taala xam na ma bayna aydihim li ne ci seen gannaaw wa ma xalfahum li ma bayna aydihim li ne ci seen kanam wa ma xalfahum ak li ne ci seen gannaaw sunu borom tabaraka wa taala mooy ki xam li ci kanam mooy ki xam li ci gannaaw loolu day wane ne sunu borom tabaraka wa taala amul lu ko ump mooy ki xam lépp ndax moo bind lépp mboolem li weesu nga xam ne daanaka sooy boo nga ne xawuta am fu mu tàmbalee ndax sab xam-xam yow doomu aadama xamul fu mu tàmbalee keneen ku dul yow ci mbindeef yi it xamul fu mu tàmbalee ndax sun borom tabaaraka wa taala mooy ki nekk jamono ya nga xamee ne dara nekkut la ca kanamit bu la neexee nga ne kenn xamul fu mu yem ndax mbindee xamu ko sunu borom tabaraka wa mooy koo xam ne ab xam-xamam amul ay frontières yi jamono amul frontières yi place kon lépp la xam su doomu aadama toogee di settantal fii nu nekk ci kaw suuf nga xam ne waxoon nañ ne ab planète bu tuuti la boo ko xoolee méngale ko ak li sunu borom tabaraka wa taala bind ci àdduna waaye fii fi suuf rek ci benn minit li fiy xew waxuma minit sax waaye ab segond lii xew ci biir segond boobu rek ku ko mënoon a dajale danga xam ne sunu borom tabaraka wa taala rek mooy yàlla yaata xobi garab ñoo fii daanu ci seconde boobu yi ñaata xeeti taw di am ndox mooy wàcce ci asamaan si dal fi suuf ñaata doomu aadama ñooy faatu ci seconde boobu yi walla ay mala ñaata jigéen ñoo fi ëmb ci biir seconde boobu yi ñaata gone ñooy juddu ci biir seconde boobu yi ñaata picc ñoo fi naaw ñaata picc ñoo fi dal jéego yi doom aadama yi dox ndox mi ñuy naan ci biir seconde bi lekk gi ñuy lekk ci biir seconde bi loolu lépp doomu aadama lott na ci xam ko te sunu borom tabaraka wa taala amut lenn lu ko wump ci yooyu yi nga xam ne kenn xamul nu mu te seconde bu nekk mi ngi am bindeef yépp suñ dajaloo woon ak li leen yàlla may tey ci ay jumtuwaay yu xarala ñu bëgg koo jëfandikoo ngir bëgg a xam lan mooy xew ci benn seconde danañ lott ca loola te sunu borom tabaraka wa rekk moo ko xam li ne ci bitib suuf ci kaw ci ay xeeti asamaan ak ay planètes ak li ñu tudde ay majaraat te ma firee woon ko ay palaanit ci xutba bi weesu waaye galaxie lay firi galaxie yooyu yi nga xam ne ay milliards la ci sun biir planète bii ñu nekk waxuma ak beneen maanaam ay junni milliards sax la ñuy wax lu gàtt lu gàtt gàtt téeméeri milliards jëm ñeenti téeméeri milliards mat na ko ci ay bërëb yoo xam ne fenn fu nekk ak la fa sunu borom tabaraka wa bind yooyu yépp dara du fa yëngu wala mu nekk ci benn situation sedd wala mu tàng walla mu ratax wala mu ñagas wala am luy dund ci kawam walla ca biiram lu dul ne lépp sunu borom tabaraka wa taala mi ngi ko takk di ko xam moo tax mu ne wa indahu mafatixul xaybi borom bi tabaraka wa taala caabi yi nga xam ne mooy caabi mbóot yi moo ko yore waxul ne moo yore mbóot yi ndax kon loola mën naa woyaf waaye la ko tëj nag nga xam ne moo tax keneen mënu koo xam caabi yooyee suñu borom tabaraka wa taala moo ko yor kon moom rek moo ko moo tax mu ne laa yaalamuha illa hu kenn xamul caabi yooyee nu ñu toll kon nag mbóot ma moom taxul ñuy wax su fekkee caabi ja ko tëj bindeef yi xamuñu nu mu toll kon mbóot ma ci boppam xóotaay ba ak sori ga dem na dayo wa yaalamu maa fi lbarri walbaxar li nekk ci jéeri ji ak la ca biir géej moom rekk moo ko xam nee na wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha amul xobu garab wu wow wuy fàqe ca garab ga wala wu tooy daanu ci suuf lu dul sunu borom tabaraka wa taala xam na ko kon kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala wala xabbatin fi zulumaati l ardi nee na amul aw fepp luy tolloog fepp dugub wala fepp ceeb wala lu ko gën a tuuti loo xam ne ci lëndëm yi nga xam ne dafa lëndëm këriis ba boo génne woon sa loxo bi doo ko gis fepp woowee nekk foofa amutit lu tooy walla lu wow nee na illa fi kitaabin mubin lu dul sunu borom tabaraka wa taala loolu lépp xam na ko ba bind ko ci ab teg ko fa allahu akbar borom bi tabaraka wa taala nee na allahu alladi xalaqa sab'a samawati wa min al mislahun xalaqa sab'a samawatin bind na juróom-ñaari asamaan asamaan yooyu wax naa ne senn si rekk nun xamagun fu mu ak fu mu yem wa min al ardi mislahunna nee na bind na it juróom-yaari suuf juróom-yaari suuf yi sun suuf sii rek dajalagun ko ba mën a xam bii ak bitti lu fa nekk ak fu mu tàmbalee ak fu mu yem nee na nag asamaan yu bari yooyu yii ak suuf yu bari yooyu yii yatanazzalu al amru baynahunna ndigalu sunu boroom mooy wàcc di dox seen diggante lu tax li taalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir ngir ngeen xam ne sunu borom tabaraka wa taala lu ne la man wa anna allaha qad axaata bi kulli cheyin ilma ne moom mooy ki peeg lépp ci xam-xam xam-xam am ko bokkul ak peeg ko axaata la sunu borom tabaraka wa taala jëfandikoo ki jëfandikoo ki defar làmp bi ba muy tàkk lii la jël boole ko ak lii ak lii xam na ne yii moom ku ko boole mu tàkk waaye lu tax muy tàkk ka xam lu tax muy tàkk kooka moo peek xam-xam ba ku dul kooka nag mën naa am xam-xam bi métier ma nga jàng ba xarñe ko xam nga bâtiment bi boo ko tabaxee jaarale ko ci norme yi boo àggee dana mën a dund nangami at waaw lu tax mu mën koo dund doo ko xam lu tax boo boolee lii ak lii boo ko taxawalee mu taxaw mën a dund fanweeri at wala juróom fukki at te du daanu du xar ab xam-xam la boo jàng ba am ko waaye lu tax mu tëddee noona loolu mooy ihaata borom bi tabaraka wa taala nag nee na wa anna allaha qad ahaata bi kulli cheyin ilma lum mën a doon lum xam lu ne da koo peeg maanaam yemul ci xam ko rek suñ xamee foofu suñ xam-xam borom tabaraka wa taala ni mu yaatoo ci biir laaye ji borom bi mu ngi nuy junjal nun sunu xam-xam ni mu gàtte moo tax mu ne wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma shaa nee na ab xam-xamu sunu borom tabaraka wa taala mënuñu cee peeg dara kon da leen di xamal waaye peegu leen xam-xamu ixaata muy peek mbir ma ba xam fam yem xam secret yi ca nekk lu tax lii doon lii lu tax lii ak lii boo ko boolee mu mel nii nee na loolu wala yuxituuna bi shay'in amut lenn lenn lenn loo xam ne mbindeef peeg na ko ci xeeti xam-xam yi illa bi ma sha lu dul la ko soob la ko soob ci xam-xam yooyu mooy lan mooy ay mbir yoo xam ne rek mosol lañ leen ko ma utitu min al ilmi illa qalila bu dee ci wàllu xam-xam du àdduna ak seen i pexe ak seen xarañteef ak lenn lu ci nekk nit mën na koo xam bañ jàpp ni kii jinne la waaye boo ko ci laajoon ay question ya gën a xóot lu ci bari da ciy taxaw danaa ah loolu de noonu la mel waaye lu tax mu mel noonu xamu ko bu dee xam-xamu diine ak xam-xamu sharia la ci sunu borom tabaraka wa taala bëgg ci doom aadama yi ñuy jëfee ko xamal na leen ko ba mat sëkk nag wàcce ko ci ay yonentam ñu jottali ko nit ña kon loolu mooy xam-xam bi nga xam ne suñu borom tabaraka jox na ko ay bindeefam waaye xam yooyu doomu aadama am yépp boo ko seetloo lu néew a néew la ci xam-xamu sunu borom tabaraka wa taala moo tax ñii ko xam dëgg muy malaayika yi ak yonent ya dañ doon wax ne subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana yéem nañ la yéem nañ sa sell gi yow suñ boroom nun day xamunu dara lu dul loo xam ne yow yaa nu ko xamal innaka anta al alimul hakim yow yaay ki xam lépp yow yaay ki xarañe lépp borom bi teg ca ne wasia kursiyuhu samawati wal ard nee na kursi yu sunu borom tabaraka wa taala moo gën a yaatu asamaan yépp boo leen boole ak suuf yépp boo leen boole kursi yi li muy firi mooy ab chaise banc lay firi ab toogu waxuñu ne nag suñ borom tabaaraka wa taala da cay toog waaye nag moo ko moom kon bind la lu tudd arash muy li gën a rëy ci lu yàlla mas a bind bind lu tudd al kursi mu doon loo xam ne gannaaw aras moo gën a rëy ci mbindeef yi Abdullah ibn Abbas nee na chaise boobu yi nga xam ne moo gën a yaatu asamaan yépp boo boole ak suuf yépp boo leen boole ak li nekk ci seen diggante nee na foofa moom la ñaari ndëggu sunu borom tabaraka wa taala tiim maanaam mooy mawdi am mooy palaasu ñaari ndëggu kon sunu borom tabaraka wa moom rekk mooy suñu boroom mu ne aras nag moom xel mënu koo xayma aras nee na xel mënu koo xayma moo tax xabaar yu bari ci rëyaayu kursi dañuy wax ne ni kursi yu mel ci asamaan yi juróom-ñaari asamaan yi ni ñuy mel ak suuf yi ni kursi yu mel ci ñoom mu ngi mel ne nga jël asamaan yi ak suuf yi ñu toll ne ab jaaro bi ngay takk ci sa baaraam ñëw ba ci manding ab àll bu yaatu nga sànni ko fa jaaro boobu li muy jël ci espace nee na asamaan yi ak suuf yi moom la ñuy jël ci kursi kon kooka nam toll bu sun borom tabaraka wa taala rekk ko xam mu teg ci ne wala yauduhu xifduhuma wala yauduhu mooy du ko diisal xifduhuma wattu leen garde leen ñoom asamaan yi ak suuf yi ak kursi asamaan yi ak suuf yi ñu doon lenn al kursi doon lenn kon huma jooji ci ñoom ñaar yi la dellu nee nag wattu leen kooku diisalut suñ borom tabarak maanaam lu yomb la ci moom comme ni ko al imaam ibnu kasir waxe lu yomb la lool lool lool ci moom ndax koo xam ne laa taxuduhu sinatun walla nawm koo xam ne ala kulli shay'in qadir du gëmmeent du nelaw lépp la man kon yooy yi nga xam ni yépp dañoo taxaw len lu nekk fañ ko taxawloo mu taxaw fa lay dox di dox ka koy wattu kooku mooy koo xam ne dara tëwu ko mu teg ci laaya ji ne wa huwa aliyul loolu la jeexale laaya ji wa moom sunu boroom al aliyu ku kawe ka al azimu mooy ku màgg ka ñaari baat yooyu làmboo na lépp ci xeeti melokaan yoo xam ne day wane féete kaw goo xam ne sunu borom tabaraka wa taala féete na ko kaw mboolem ay mbindeefam amul mbindeef mu féete kaw borom bi tabaraka wa taala ci màggaayam ci jëmmam ja waaye mooy ki nga xam ne moo gën a kawe lépp moo not lépp itam ci wetu maanaa mboolem bindeef yi toroxlu nañ ci kanam seen boroom tabaraka wa amut lu jafe ci sunu boroom mboolem way rëy yaag way rëy rëy lu yaag way màgg màggaloo yi ñépp tàllal nañ seeni loos ci seen kanam boroom tabaraka wa toroxlu ko ruux yépp jébbalu nañ ci seen boroom tabaraka loolu moo tax ki yàlla may tawfiq tam doon bindeef fii ci àdduna di nit wëlbati doon ab jullit dana xam ne luy màgg fii wala ko fiy màgg ak lu sag màgg man mën a rëy moo xam ca lu mën a doon nag ak daraja ju la yàlla mën a jox sab màggaay ak sab tolluwaay ak sab man mën ak sab am-am ak sab xam-xam bu xam-xamub yàlla taxawee akub mën-mënam akub am-amam la nga yoroon yow day réer day def mër réer dootoo ko gis loolu moo tax bu fekkee ne dañoo seet seetlu mbokki jullit yi laaye ji loolu nga xam ne mooy ngëneel yiñ tuddoon ci laaye ak njariñ yi ci nekk ak xóot xóot yi nekk ci biir maanaam laaye ji képp koo xam ne jàng na ko te settantal ko la muy jëkk a yëg mooy màggaayu sunu borom tabaraka wa taala su yégee màggaayu sunu borom tabaraka wa taala ak man-manam akuk moomeelam li mu yaatoo yooyu am na yum ko war a jural ci xam-xam waaye yum ko war a jul jural yit ci li ñuy wax suluuk maanaam ci wàllu jikko ak ci wàllu doxaliin war na war naa def ci moom ay soppat yoo xam ne day soppiku ci ay jikkoom ak doxalinam man ay waxam ak i jëfam yooyu nan ci taxaw tuuti tànn ci lenn ci xam-xam yi nga xam ne laay ji dana la ko jox waaye melokaan yi nga xam ne war na la ko jural itam ba ci jëkk moo di ne lépp loo xam ne doomu aadama àgg na ci tey ci ay xam-xam yu aju ci suuf maanaam aju ci jéer yi wala mu aju ci géej wala mu aju ci kaw wala ci biir suuf si wala muy sax xam-xam bu aju ci nit ci doomu aadama ci boppam ak wér-gi-yaramam walla ci mala wala ci gàncax wala ci biddiw yi ak planètes yi loolu lépp day wone màggaayu sunu borom tabaraka wa saa bu nit ka gënee xóot ci xam-xam ba mu jàng su fekkee ku yàlla may tawfiq la day gën a dolliku ak waaru day gën a dolliku ak jommi ci boroom bi tabaraka wa taala ni mu tëre mbir yi ba leen lu nekk fam nekk muy def na ko boroomam sant xoolal nit ku dund téeméeri at xolam boobu yi nga xam ne ba mu juddoo waxuma ba mu juddoo waaye ba mu nekkee ci biirub yaayam la tàmbali woon di dox seconde bu nekk am na nangami yoon yu muy yëngatu saa bu yëngatoo bu nekk am na deret yu muy sànni mu wër yaram wépp jaar ci bopp bi jaar fépp dellusiwaat di ko def nga xam ne bu taxawoon rek balaa mat une minute mu faatu continuer di dox ba waa ji dund juróom-ñeent fukki at téeméeri at loolu kan moo kan mooy mën a doxal lu mel noonu machine bu doon dox loolu ñaati yoon lay aaja taxaw ñu yóbbu ko entretenir ko génne lii raxas ko changer pièce bii dugalaat beneen dafa mel noonu kooku moom continuer loolu lépp kenn opéré wu ko nettoyé luñ ko xol boobu yi wekki wuñ ko monteel ko beneen waaye benn boob yi mooy dox ba mu nekkee ci biiru bi yaayam ba keroog muy am juróom-ñeent fukki at wala téeméeri at boobu xam-xam kan moo ko man ak kan moo ko mën a xalaat ba xam nu mu tëddee te loolu lenn rekk la ci loo xam ni li la gën a jegele yow doomu aadama ndax su dund ci la aju waaye sa lépp nag noonu la demee boo ñëwee ci bët bi noonu la demee nga ñëw ci nopp yi noonu la demee tànk yi dox noonu la demee mboolem cër yi nga xam ne yaa ngi koy jëfandikoo mu amal la njariñ fii ci àdduna ki ko liggéey da ko liggéey ngir mu man loola mu continuer di def noonu loolu yi loo ci gën a bari xam-xam ci loolu da nga war a gën a waaru ci sa borom tabaraka wa taala ñaareel ba mooy settantal googi su amee ci nit ki moom dey lum bari bari xam-xam lum doon doon borom xel mu neex ak lum muus muus su xamee boppam xam lii ñu tudd ci moomeelug yàlla ak i bindeefam dana xam ne moom de ndeketi daanaka du dara ndax suuf ak li ci biir lépp boo ko boole woon méngale ko leneen ci yàlla bind rek da ngay gis ne suuf si daanaka du dara ab tomb lay doon ni ko waxe woon kon nag bindeef yu bari yooyu su ko nit ki xamee xam boppam ak ni mu ñàkke solo lam ko war a jural mooy ak toroxlu xeeb boppam bañ a rëy fi kanam jenn doomu aadama waaye torox boroomam mi nga xam ne moo yeyoo ñu torox lul ko su ko defee loola am na leneen lum koy jural mooy ñetteel ba muy xam-xam boobu lu mu gën a yaatu daa war a jural nit ki ragal boroomam ak jaamu ko mu xam ne borom bi tabaraka wa taala tànn gim tànn doomu aadama wàcce ci moom gën ji yonent mu yonent bu mujj bi nga xam ne mooy ki gën ci yonent yi di sunub yonent mu wàcc ko ci noonu jox nu responsabilité jaamu ko sukkandiku ci ngën ji téere muy alxaanul karim ngën ji waxi yonent muy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu yëpp ñu booleel nu ko jox nu ko dañuy xam ne loolu yi tiraanga la tiraangay jaamu yàlla ak wéetal ko ak jàpp ci diineem tiraanga jooj yi nag borom bi tabaraka gaaral na ko asamaan ak suuf ak montagne yi mu diis ci ñoom borom bi tabaraka jox ko nit kon jaamu ak wéetal nit lañ ko jagleel waaye nag kenn ku nekk téewut am na lu la sa borom sant loo xam ne sañoo koo bañ muy asamaan muy suuf muy leneen waaye jaamu ak wéetal nag ak recevoir ay yonent loolu moom doomu aadama la ko yàlla jagleel muy responsabilité bu rëy mu war koo yëg war cee sant boromam tabaraka wa taala ñeenteel ba nit ki su seetloo sun borom tabaraka wa lii mu wax ne yaalamu ma ay aydihim wa ma xalfahum war na koo indil meññetum benn contrôle boo xam ne ci biiram lay nekk riqaaba zaatiya muy benn appareil boo xam ne ci biiram lay nekk di ko contrôler lu muy bëgg a def lu nekk xool ba xam lii lu jaadu la wala lu jaaduwut appareil boobu su dundee te def liggéey bi mu war a def nit ki li nëbbu ci moom ak li feeñ benn lay doon lu tax mooy xam na ne boroomam kat ya'lamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum sa lépp la xam mu ngi lay gis foo mën a nekk lu mu làqu-làqu kuy gis aw fepp daanu ci ëg lëndëm koo xam ne boo yékkatee sa loxo doo ko gis kon yow doomu aadama sa néeg ba nga nekk tëju kenn nekku fa la ngay def xamal ne sa borom tabaraka wa taala mi koy gis loolu nag su fa nit ka àggee la koy jural ginnaaw dara nëbbuwul boroomam te lépp la fekke kon la muy def ci bitti ngir rose ko nit ñi dana ko wattandikoo def ca biir ngir ruse ko boroomam tabaraka wa taala ndax nit ñi ci bitti di la xool di la seetaan li ñu xam ci yow ba tax nga rus leen ba yenn yi ñeme woo koo def ci seen kanam walla nga wax ko la sa boroom xam ci yow moo ko gën a xóot moo ko gën a leer fa moom kon moom nga war a gën a rus moom nga war a gën a ragal juróomeel ba soo jàngee li mu wax ne wala yaoduhu xifduhuma asamaan yoo yeeg suuf yeeg bindeef yu bari yeeg arash ak yooyu yépp borom bi tabaraka wa wax ne wattu ko muy garde ko lu yomb la ci moom soo jàngee laay euh, tomb boobu ci laaye ji xool liñ la wax ne laaye ji day wattu nit ba seytaane du ko mën a yàqal jàng ko day wattu nit ba seytaane du ko mën a yàqal kon jamono yi ngay jàng laay ji sa xel a ngi dem ci walla yauduhu xifduhuma mu mel ne yaa ngi wax ak sa boroom di ko wax ne yaa rab yow saa boroom yow mi nga xam ne wattu asamaan ak suuf ak li nekk ci seen digganteek kursi ak aras ak lépp dara diisul fi yow kon kat diisul fi yow nga man ma wattul sama bopp sama bakkan sama askan sama alal sama diine sama wér-gi-yaram sama wërsëg ni nga mat mën a wattoo asamaan ak suuf na nga ma wattul kon sama yooy yi kon laay ji boo xoolee da ngay gis ni diggante wattu gisuñ borom tabaraka wa di wattu yooyu yi mu wax ne luñ bari bari yépp la mën a wattu kon yow doomu aadama ginnaaw nee nañ la laay ji dalay wattu ci seytaane wattu la ci lépp loo xam ne lu lay yàqal la jamono yi ngay jàng laaya ji na nga teewlu loolu xam ne ki ngay waxal bëgg mu wattu la ba tax ngay jàng laaya ji mooy ki nga xam ne asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante loolu mënu koo lottal kon wattu sa mbir lu ko yomb la su ko defee nga dogu ci sa ñaan dogu ci wéral sa yéene jamono ji ngay jàng laayatul kursi kon loolu yi mooy li nga xam ne ay tomb yu woyof la yoo xam ne mënees na koo wax ci ayatul kursi bu ëllëgee ñu jàngaat leneen loo xam ne dana dugg ci biir silsila boobu muy kër-këraan boobu yi nu tàmbali woon allahuma musarrif alqulub sarrif qulubana ala taatik allahuma inna nasaluka min xayri ma saalaka nabiyuka muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa naudu bika min charri ma stacaadaka minhu nabiyuka muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahuma atina fi dunia xasana wa fi alaaxirati xasanatan wa qina adaaba annaar allahuma axsin caaqibatana fi alumuuri kulliha wa ajirna min xisyi addunya wa adaabi alaaxira allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulik nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam